programme bi d'abord dañuy def benn désherbage maanaam dindi ñax bi fexe ba ñax bi nga xam ne donc euh, gis-gis gis-gis bi rafet parce que école bi boo boo duggee si biir xool di nga gis ne ah euh, dalul xel.

aujourd'hui euh, Jaxaay euh, lycée Jaxaay euh, xamul sa inondation parce que man il cinq ans de cela maa ngi woon si école bi c'est fii la amee sama bac donc lycée Jaxaay nga gis inondation bi ñëw donc ndox bi bëri fi sens dindi ko parfois nag da gis ay moto pompe yu ñëw fii mais c'est carrément inefficace donc loolu mooy wala ne les autorités donc ils sont ils par rapport à ce problème. en trois semaines maanaam fii am fii am ñetti semaines donc élèves yi dañuy élèves yi nii buñ ñëw ñaa si condition yi nii boo xoolee bu baax a baax di nga xam ne condition yi nii nekkul ay conditions yoo xam ne baax na donc pour élèves yi jàngee fi donc aujourd'hui élèves yi bu ñu mënul jàng si donc li ñu waroon jàng si seen programme maanaam dina am jeexital bu baax a baax pourquoi parce que bu ñu amoon weer wala ñu nga xam ne donc euh, duñ mën a duñ mën a duñ beneen conséquence bi mooy lan aujourd'hui euh, jaxaay day Lycée Jaxaay donc li nga xam ne prestige bu mu amoon pourquoi parce que aujourd'hui quelqu'un qui passe par là ki xam ne dafa amoon intention dugal dugal doomam fii nii si si école bi bu ñëwee gis environnement bu mel danaa ne non non non du a xalaat voilà quelqu'un ki nga xam ne nag moo fi doon jàngee peut-être kooku dina am xalaat ñëw mais ki nga xam ne mosul fee jàngee wala mosul fee kii quelqu'un qui vient de de déménager ici bu ñëwee gis dina ne ah lycée bi moom sama doom fee jàngee pourquoi parce que environnement bi alam bi donc nekkul si nekkul si si ay conditions yu baax. donc de mais malheureusement ce n'est pas ça nekkul loolu la autorités autorités war a def les autorités doivent aller vers l'anticipation maanaam dañuy gis ne fii problème war na fay am donc ñu anticiper indi ay problème ay solutions palliatives voire même des solutions curatives ba affaire bi jeex ba nga xam ne donc bu taw bi ñëwee wala bu leneen ñëwee donc du indi du indi problème mais malheureusement dañuy bàyyi ba affaire ba problème ñëw ba ba mbir yi ne këtt ne jon ñu ne dañuy dañuy dañuy régler problème te loolu bu ñu koy régler amaana day fex ba nga xam ne day voilà donc ñun nag wax dëgg fa neex yàlla on a été touché bañ gisee ne ñax yi jël na ampleur bu mu jël nii léegi nag dem nañ ci autorité yi dem nañ ci ku ne waxtaan ak moom donc euh, bon autorité compétente yaa duñ duñ cité tur voilà pour bañ euh, griller donc euh, dem nañ si autorité compétente yi waxtu waxtaan ak ñoom te euh, franchement chaque bon chaque fois ah, da ngay gis ñoom ñuy ñëw fii di def bon un semblant d'étude parce que bon loolu lañ yaakaar ah dañuy ñëw def xool xool après demaat def ay promesse ne dinañ régler dinañ régler mais si ay si ay promesse si ay ndigee rek donc la la la yem amul benn solution boo xam ne gis nañ ko teg nañ si seen bët.